Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et set si Setsima TV xibaar yu wér te wóor. mu mel ni bu ñu la déggee euh, Thierno euh, soo jëflanteeg nit moo xam ku jigéen la mu bëgg a téye borom këram ci wetam allah ku laal borom këram boobu dina des di wéy euh, di ko bëgg. di soppanteeg moom di jàppanteeg moom parce que am na ñoom dañuy dugg ci biir sëy dem ba mu yàgg mel ni mbëggeel ga dafa wàññeeku. waaw nopp nag gis nga noog dafa doy waar surtout nopp bi nga xamante moom lay Haalpulaar yi def koo defal nopp ak loo ko noppal ak lu munte nekk day daal di mel ne xaj ci xaj ci yow daf lay topp rek wala day daal di mel ne mburu ak sow nu jaxasoo jeex na soo noobee diggante rek day tafu ci waa ji wala ndaw si tafu ci waa ji noonu lay mel euh, nopp su jàppee nit ki mun na ko sax dofloo ndax day miin kook ba mu ëpp hmm. day waaw waaw noob yi Haalpulaar def dafa doy waar nekkul noog boo xamante noobu caaxaan la moo tax toujours suñ koy fas suñu suñu noobee ba di fas da ngay gis ku fasee xëcc jëmale ci ci ci nde ci càmmoñam xam tax ñu def ñu koy ñu koy xëccee càmmoñ mm. ndaxte xoli doomu aadama càmmoñ la féete koo gis muy fas rek suy fas xëccewu càmmoñ rek da xam ni kooku mënul fas mm. mm-hmm. fas dañ koy mën sooy fas soo defee li nga war a jàng jat ba pare da ngay xëccee càmmoñ am nooy si boole loolu nag nekkul lu ñuy wax fii moo mais nag koo koo gis nag suy fas du xëccee càmmo rek da nga xam ne des naa mun allahu bar alors euh, loolu de xam-xamu pulaar la parce que wax naa ko léegi fas moom nañu leen ko bàyyee parce que yéen yéen ak ko moom wàllu fas mais euh, ki nga xamante ne bii moom ki muy fas patron la dafay liggéey ak moom wala euh, dafa siq ak moom ay projet gën bëgg mu jox ko bopp ba seen liggéey bi yemb ko itam ci fas nga koy. waaw loolu waaw loolu dafay dal di am solo xam nga am ñoo xamante ne ndeysaan dañuy nekk ci kër di di di daan seen doole. mun ngaa nekk jànq bu liggéey ci kër borom kër gi xatal la su ko defee ngay ñaanlu ci yàlla ba waa ji gën laa bëgg jàppale di doomam. Mm-hmm. wala nga dem ci société yi gis koo xamante dafay liggéey. Mm-hmm. Euh, nit ki sonal ko lool mhm. euh, wala sax ñu koy proposé yéen yoo xamante du yoon mhm. su ko defee waa ji def ci ñaanlu yàlla ah kooku suñ ko noobee dafay daal di am lu mu soxla mhm. noonu lay demee noob daal mun nañ ko utiliser ci lu ne nit ku amee société boo xamante euh, employé am dañ koo sonal mun na leen defal loolu comprendre nga. pour noob leen teel bu la neexee itam sa biir société nga ne ku fi dugg dootoo génnaat ala. waaw wala nga am ko xam ne ñëpp koy soxla ñëpp a koy xëccoo nga ne kii moom dama ko bëgg a téye fii loolu lépp mu ngi fii da nga koy téye am looy def téye ko loolu lay arab di wax tasxiir di Haalpulaar di ko wax noob waaw loolu soo ko defee danga am li nga soxla ci moom. noobu Cerno ci ñaata fan lay jàpp. waaw noob moom lu ci gën a lu ci gën a gudd su guddee ba gudd juróom-ñaari fan su gàttee ba gàtt ñetti fan koo noobal juróom-ñaari fan gisul rek na nga xam ne mënul su gaawee tamit ñetti fan su yéexee juróom-ñaari fan. li ma bëgg xam mooy kii am soxla wala woo Cerno di ko seetaan nii woo ko ne ko dama bëgg nga noobal ma diw ci juróom-ñaari fan mu bëgg ma miir ci man ba dof ndax sama jëkkër la wala dama koy waaj a takk cerno ci juróom-ñaari waaw loolu mun na nekk juróom fay sans départ ci ndax waa ji xam nga nit tamit soo koy liggéeyal dafa ay charte di lal. Uh-huh. waa ji d'accord ci charte yooyu rek incha allahu lu gën a gudd juróom fan lu gën a gaaw ñetti fan. loolu leer na ak Thierno euh, Sow Al Amine alors. Setsima l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te